bon il ne faut pas dire que obligatoirement d'accord ah, il, y aura des éclatements hein, parce que nous en sommes là. Vous avez un petit choix ah quand même quand même quand même <laughs> problème eh, problème a poste. département de Nangalma deux députés la ñu discuter. Ah, loolu rek problème la. <laughs> daf dafa xat d' accord alors ni ma ko doon waxee léegi nii dañuy dem euh, peut-être suñu dernier sujet hein, parce que euh, il nous reste deux sujets mais xam naa peut-être si benn bi peut-être la ñuy mujj il nous reste vingt minutes euh, li ma doon wax muy la reddition des des des comptes alors gis nañ ne tam le pôle le pôle judiciaire financier est activé et le procureur actuellement am na dossier yoo xam ne voilà mi ngi koy commencé ñu ngi ñuy wax léegi ko wax nañ ko la Diop hein. bon pour le cas de Diop aussi pour préciser nee na du question privé c'est une affaire privée donc Diop dit l'affaire privée moo ko fa yóbbu question réduction des des des comptes alors euh, si commencement déjà la ñuy la la bëgg ñu ñëw ci euh, en en 2012 par exemple PDS bi mu perte nguur gi dañu gis ne automatiquement rek dafa am benn campagne nous avons le régime Macky daf ko nous dañu sàcc xaalis gisoon nañu annoncé 2 2000 milliards dem après créé yi le procureur Ndaw avait annoncé 638 milliards pour Karim Wade à un moment donné peut être maa ngi koy wax euh, comité de directeur PDS ñëpp ngi woon ci kaso bi alors aujourd'hui ñii itam ni ñu commencé mooy di wax né ñi dafa dañoo sàcc alal réew mi dañoo nangam dañoo nangam li ñu fi wax légui am ay responsables yu bëgg tukki ñu téye alors si sa gis-gis bo comparé li xewon 2012 ak li nga xam moy xew tay est-ce que euh, mën nañu njortu né amna na aux sorcières wana amna affaire politique bu sulaq wala si sa gis-gis euh, lu normal la rek donte dafa nek contexte yu wara a jëm élection locale réduction des comptes la et que état dafa mën nañ ko may muy doxe noonu. réduction des comptes. aussi hmm. buñ ci wax mooy. ki hmm. nga xamné moy am tous les jours dans l'administration moy am sax ci butu gouvernement yi boutique boo ko yoree nit a benn waxtu dangay ñëw mu tëj boutique bi fu nga xool marchandise bu nekk lay nangam bu nekk nga calculer ko ñu ne temps la après ñu ubbi kees gi xool ko wàññi li fa nekk hmm. moo gis nga sunguf meew yi dañ koy defaat ci ay mbuus yeewaat ko bu nekk ñooñ ko bi jar 10 bi jar 100 francs tàngal yi ñu wàññi ko ba jàpp ne bi lii moo fi nekk ci xaalis lii marchandise la lii mu ngi ci kees lii mu ngi si benn cahier boo xam ne ñu si am compte la. mooy li ñuy wax ñun inventaire. waaw waaw moom li ñu tuddee inventaire voilà très <laughs> ko defee. Hmm. ci ngay xam wàcce seet ndegam boutique bi xaalis bi ci dugaloon. moo fi nekk wala déet. parce que xaalis bi ngay dugal si boutique mooy boo kii quatre-vingts hmm. yaa ngi dugal cent. oui. quatre def plus vingt francs de bénéfice égale cent mooy prix de vente. loolu ngay def. donc la mhm. ala la mhm. koy def a bu mhm. milliers des milliers milliers milliers ci milliers, pour des compte à machin C'est que des milliers, jël. parce que dañu des ci des moments des milliers, des milliers, yi malversation am détournement de deniers publics mais milliers, des milliers, des des des Sénégal Di am moy benen façon de concussion ak de corruption. Mm. wala sur les prix facturation wala sur les <laughs> marchés wala sur les facturations loolay am. Mm-hmm. parce que amna na benn maire wax nañ fii jëndoon na fi ay kay écolier cahier trois mille ah cahier cahier deux lignes <laughs> ci ay jamono donc loolu yëpp boo gisee moo tax suñu loi suñu législation mm. on la reddition des comptes nag est devenue un acte de bonne gouvernance Hmm. dañ koy bind ci kayit yi. oui di ko jàngale. di buñ lay indil xaalis wala dimbali dimbali. Hmm. dañ lay wax ne lii ak lii ak lay def. donc reddition des comptes kenn sañu ko bañ c'est une obligation. ok mais dafa am yoon dafa am yoon reddition des comptes ma jox la ci benn man. Hmm. man ci privé laa liggéey. waay. 78 ba 2012. On est assemblé, me ma je du ordonnateur de dépenses. mais nous, gens crient, ma dit que nangam nangam assemblée mais donc nous, obligation la mhm. de compte normal, international, internationale mhm. outil de gestion mhm. ku nekk daf entreprise bu nekk daf ko daf ko war a def mais chasse au sorcières mooy xool lii rek day def na dara attaqué ko jàpp ko tëj ko te xamoo lu tax nga jàpp xamoo lu tax ñu jàpp la coow mais am naa ay actes yu ma gis man hmm. gis naa benn député bu ñu arrêté nangu otoom ci auto administration ñu ne parce que oto bi warul warul daw dimanche mais xam naa ne <coughs> gendarme yi dañ ko teg foofu pour yoon woowu ci yoonu këram xëy na bu ñëwee pour ñu jàpp ko dafay am donc encore une fois am na loo xam ne aussi suñu gendarme yi ak suñu militaires yi hmm. ak suñu policiers yi buñ leen ko defee war nañ ko bañ <coughs> woo kuy tukki bu dugg ci aéroport jóge këram te yow ni nga informé ki nekk aéroport informé waa ji moo gën a yomb muy dem tu tukki ko nga jàpp nga téye nga téye ko mais loolu chasse aux mais bu fekkee ne gouvernement bi dafa am ay affaire yu mu gis yoo xam ne yi moom lii dañ ko war a faj. Hmm. dañ ko war a defar ñi fi nekk dañ leen war a téye dañ leen war a atte ñoom bu ñu ko deful ñu jëlee leen fi. en tout cas Sonko annoncé na ko président Diomaye annoncé na ko que li ñu gis si réew mi am na loo xam ne présidence dem na ne am na loo xam ne yëfu maa tey la presque lu ñu def yàq goo xam ne maa tey la. oui je suis d' accord. loolu aw aw ma aw ci benn benn benn benn benn natable. Hmm. moom moo gis loolu man gisuma mais dama ne. Hmm. ñoom bu fekkee ne xam nañ ñi jël xaalis yi te ñoom waxuñu ko ñoom ñoom dañu leen fii jëlee xanaa ngoon mooy d' accord nañ ci def ko. léegi kenn dootul jël kees gi yóbbu